wala ñenn ñi Abou Thioubalo loolu bokk na ci jàpp ni Bijou Ngoné da lay invité ci plateau ngir toroxal la est-ce que xam nga Bijou Ngoné xam nga émission bi muy def suñu bisu. suñu biisu. newoon na fii à la ah, CNT newoon na fii à ngay wax. Ah, ok waaw ah, ay boo ne biisu ngoone ngoone ngoone talaata ngoone fii la nekkoon. fii la newoon fii la jógee dem ci El Hadj Ndiaye koo xam ne boo demee dalay toroxal bu la wooyee bul dem am dit koo xam ne bu la wooyee dalay toroxal bu la wooyee toogal moo gën nga. moo gën nga di ko nga di ko coow man daal xam naa ne bu ma bu ma biisu woowee dana ma toroxal man iranti bëgguma toro naa toog bëgg télé du ma ci dugal waaw ma seet keneen koo koo xam dana ma mën a invité ma dem foofu waaye nag di ko di ko mbamb moom jaru ko jaru mbamb jarul dara bu la wóoree ne boo demee mu toroxala bul dem waaw man nag du loolu ta du looloo tax mu may invité deew ma bu bu ko ah, ah, seetaanee bu ko seetaanee dana ne Iran mii invité naa ko ay yoon yoon yoon yoon mu lànk ñëw man bu ma invité du dem dama du dem noonu rek man télé yëpp yow man dama du sawar xam nga dañ ma invité benn bis ci benn télé bañ ma wax man dem naa toog naa de plus hmm? commencé waaw mm-hmm. commencé wul ma toog rek may leen yéen itam heure bi ngeen ma wax waroon ngeen ma wax heure sàngam xam nga lu benn waay wax te ne ah mais Iran du tax du change suñu programme waa du ma tax ngeen change seen programme yéen itam kay bu leen ma change loo sama programme <laughs> fàtte na loolu mm-hmm. waaye tontuwuma ca dama ne patt waaye saf na sàpp de mm-hmm. bëggaat nañu ko bëggaat ko bëggaat ko nu ne nañ ma fa man ay toog yàgg rek laa bañ. Mm-hmm. man daal boo ma waxee heure fonkal heure bi bu ma ñëwee nañu respecte heure bi def li ñuy def mm-hmm. waaw moo tax du ma dem. non non góor moom du xas jigéen mm-hmm. c'est-à-dire la rek mer moom bu ñëwee lañ ko def ba tax mu wax loola mhm. ah bu meree rek mer mer moom mer la waaw ah, mer noonu boroom la eh, yonent bi daan wax ne alxadabu adduun mhm. nee na mer noon la mhm. waaw soo meree rek danga wax loo xam ne moo tax mu daan wax ne boo meree bu la fekkee nga taxaw gaawal toog su nga toog fa ndox nekkee naanal ndax jamratun la jamratun benn xalu safara la buy bu gisee nit bu meree ba di dee xonq coy su naanee rek mu fay waaw awal naan nga mer mi bu jeexee dana ko rëcc waaw mer la rek nit da nga koy àtti ci jamonoy meram nga xam ni kii dafa mer waaw voilà ku mer da koy xam waaye jarul loon xaste jarul loon wax dara sëy bu tasa ah, Sayyidatuna Xadija tas na ñaari yoon di te fi nga xam ne avant que yonent bi takk ñaari jëkk takk nañ ko <laughs> loolu ci ne tas tas tas sëy bu tas lu ci ne boo boo àndee kii te man leen ànd rek ngeen benn ngeen dem ah ku ne wuti kum seeti seeti keneen loolu moom du wax xadija tas na ñaari yoon te xadijaay sangu jigéen ñi ci kër yonent bi ci soxna yonent yi mooy seen sang ndax la mu taxawee ah, sang bu tedd la waaye tas na ñaari yoon yonent bi doo ko takk jëkkëram ba mu dajeeg moom toog na fa mm-hmm. Ah? Mm-hmm. ba mu dajeeg Mouhamad toog na ci Mouhamad. <laughs> parce que koo koy borom këram. da doon rek ba daj ki muy ki muy ki muy seen waaye sëy tas moom kenn du ko xasee jigéen. ah sëy di tas ñaaw jikko la wala jar la ndax it jóge fii du yàgg dara eh, ñoom dañuy jarat tey jar la wala ñaaw xam nga jar moom koy jaayoo koy def koy jaayoo mooy jar. diw dee day jaayu muy gis taaram jaayu fii ñu takk ko mu jógee fii jaar fële ja kooku la waaye kii wu kii ki yàlla dogal ci moom sëyam di tas te bëggiwu ko noonu lu ci man bëri na koo xam ne naa sama jëkkër dinaa ci toog dañ mu ciy suul waaye duma ci bàyyi fu far sax du ca yàgg bu mujj bee ngi ah, ah, far far xam nga danaan man kii kii bii sama mujj sama sëy mujj mais fekk du loolu sax yàlla bu paree pareegul rek pareegul ci yow lépp lu nit du dugg ñaanal yàlla ànd ci ak yow su ca yàlla ànd la yow doo doo ca pare noonu waaw yàlla ànd yow nag nga nga am li nga bëgg bu ca yàlla ànd la yow doo ci am li nga bëgg waaw nit ku ne noonu lay def chirurgie l'islam d'accord na chirurgie luy loolu mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy fay ndax bisu nga de moom nee fay na plus de cinquante millions ngir am graisse goo xam ne dafa nekk ci biir yaramam ñu dindil ko defaraat ko yaram ah. defaraat defaraat yaramam maanaam tey fay ñu defal la opération defaraatal la sa yaram nee fay na ci lu ëpp cinquante millions. <laughs> waaw xanaa xanaa xamoon ne yow léegi. Mhm. boo yoree jabet. Mhm. am na benn doom bu ñu lay bu ngand. Mhm. ak benn doom bu ndaw. bu mel ni lu xaw a jaune. da am na yeneen garab yoo xam ne day dégraisser nit. tout waaw sa graisse bëree kay lu ko dindi baax na. lu ko dindi baax na. waaw da koy dégraisser ba nga xam ne baax na parce que bu ëppee ci yow da lay fatt. waaw dee nga naan loraange. mag mag mag ma koy ngi jël kay jëlal mag ma rek. moom kay bu bu rek la nga dee. tax nag loolu nga fay. xaalis bi du dara sa yaram bi mooy dara sa yaram wuu nga fay cinquante millions cinquante milliards nga fay ko sax cinquante milliards boo ko amee nga fay ko sa yaram baax na waaw baax na dara wàññiwul dara wàññiwul dara xaalis bi du dara nga sa nga wér doole parce que nit li moom moo liggéey xaalis moo liggéey xaalis moo mën a tax xaalis di xaalis bu ko nee xaalis di doon xaalis ana ana xaalis bi Ablaye Wade di sotti woon kenn xamatul fu mu nekk. boobu xaalis tey ku ko yoroon ko ci yoroon camion yi du jar. <laughs> camion demal jënd ceeb. wala nga jënd benn tax ñu caaf. <laughs> doo kenn du ko jënd. waaw kenn du la faale. xaalis bu ñu toroxal rek jeex na. nit mooy teral xaalis mooy toroxal xaalis. su ko toroxalee jeex na. torox na tot toroon na. waaw kenn dootu ci man dara. su ko toroxalee su ko tedd teddalee nag jeex na. <laughs> mooy mu mooy mu wax bàyyi ko fi voilà. macha allah kon actualité bi ñuy tëjee rek bu fekkee sama benn confrère euh, wax fa dëgg yàlla. allez-y d'accord mu mu mu mel Ouzin Aïcha <laughs> yeneen bi de sallallahu alayhi wa sallam na ràmbaaj ku koy dund doo dem aljana te doxalul jannata na maamu nee kuy dem kuy kuy ràmbaaji nit ñi di jaxasi nit ñi yàq deru nit ñi yàlla nag wax na ni kiy yàq deru nit du mos aljana dinaa ko duma fii xaar ko ëllëg ma alal ko waaw alladina yuhibuna an tasha al fahishatu lilladina amanu wa lahum adabun alimun fi dunia wal axira yàlla ko ñu yàq dëri nit ñi nga xam ne lu ne la ñuy jël di ko sosal nit lu ne la ñuy jël di ko waxal nit fu ne la ñuy dëkkal nit te kat dara du leen ci wóor loolu baaxul loolu baaxul na ñu xam ne ñun benn lañu waaye jël deru nit def ca loo xam ne te kat internet bi jël na ko ñépp jël nañ ko ñëpp jël nañ ba ba def ko benn côté su dara xewatee rek ñu génn waaw loolu baaxul te am na koo xam ne dana ko gëm sa noonu lay doon gëm na ko waaw waaye bu ñu kenn day waaye li muy wax dëgg la waaye ah boo bu dul doon dëgg duñ ko wax waaye seetal loolu da koo gënal da koo gënal mu kontaan ci yàq der baaxul iblis dañ ko laaj ne ko yow gémmiñ ni ñuy yàq der ak ñuy jëw loolu loolu loo ci xam mu ne maa fa jàddi bu ñu commencé yàq leen may def fii dara seen tuñ lu mel ni suukar mu saf lool neex ñu continuer wax rek di wax lu bon rek waaw bu añ jotee sax bu ñu leen kaay ñu ne baax na wax waay waay bul yàq suñu waxtaan waaye demal waaye seetal <laughs> lii rek bul yàq suñu waxtaan demal demal demal demal dañuy waxtaan waaw ndax wax ju bon wax ju bon baaxul nañ leen moytu lu bon mere nit bu mu la taxaw wax lu ñaaw meer nit bu mu la tax a wax sos meer nit bu mu la tax a jëw meer nit bu mu la tax rambaaj kenn ku ne na seet la muy wax ci moromam muy lu baax dégg loolu moo moo gën a rafet ah kon wax fa dëgg yàlla mu mel na euh, terminus mu mel na gars yi oustaz doyal nan wax dëgg yàlla te wala El waaw léegi xam nga li tax ñu la daan yóbbu sëriñ ñu lay liggéey sëriñ booba mën naa si liggéey léegi sëriñ si xamuñu dara dara lañu xam nga dem yaa ngi ni kii lekk na sama xaalis si defal ma dara daf may fonto luñ xam xamuñu dara léegi na nga dem yàq deru nit ci télé bi moo ko gën moo gën a yomb mooy loolu ñaar yëpp lu ci ban njëriñ la am yow nga dem sosal nit ki mhm. ak nga dem yàq nit ki ak nga dem liggéey nit ki lu mu la jëriñ mhm. est-ce que xam nga ne ki ngay liggéey jaamu yàlla mhm. est-ce que xam nga ne njabootu yàlla ngay liggéey est-ce que xam nga ne yaa ngi ci yàlla ne ko kay kay réel ma sa jaam seetal loolu te xamoo loolu yaa ngi ñaan yàlla wala nga dem nit ki liggéey yàlla ngeen ne ko kaay liggéeyal ma diw ma fay la nangam mu mu mu fay la nga d'accord mu fay la nga liggéeyal ko diw mu dof baa mu yenu sagaram baa dootu ànd ak sagoom baa dootu xam lu muy wax baa dootu xam fu mu jëm baa dootu xam dara nga kontaan ni ko sayee lañ bëggoon am nañ ko sayewul di saye pas di mm-hmm. ah yàlla nag mi moom jaam bi yaam bi jaam bi na dese nga ak yàlla beneen affaire mm-hmm. yàlla sunu boroom mooy jógaat nag ak beneen xam-xamam waaw wan la ne la jaam bii nga def lii maa ko bind maa ko moom yow itam sama xam-xam nga jël di ko jëfandikoo ku la ko sant su ma la saloon na yow ma is andi naayam ku la ko sant loolu si maanaam jigéen ana kooka. faatu na. man waaw man ndax faatu na. <laughs> day wax rek xam nga nit ñi eh, dañoo bëgg a tiitalaate mm-hmm. ay fan dana am ko faatu mm-hmm. lu tax kenn du faatu mm-hmm. ku jeexal dem mhm. waaye ku jeexalu des bi waaw mhm. moom ñaata fan a ko dese moom ñaata fan a ko dese ku xam kay kuy faatu war ngaa xam yow lii la dese waaw ah. yàlla rek xam lépp ñu bàyyi yàlla lépp yàlla xam lépp mën nañ bàyyi yàlla lépp yàlla xam lépp nañ bàyyi yàlla lépp mhm. Sall di la jaajëfalaat bu baax a baax ci disponibilité bi di jaajëfal mbokk yi nii seetaan kàddu gu mujj gi lan njëkk rek. njëkk mooy ki mujj asura rek. Mm-hmm. waaw asura daal nañ ko fonk. Mm-hmm. comme li nga wax sànq. Mm-hmm. di décembre def ko fo ila ajalin musamman. yëkkati ko màggal ko di ko fonk di def si ay affaire bàyyi suñu bos du noonu. te benn boo seetloo sax décembre la gën a fonk. Mhm. waaw moo tax ñu bëri naan est-ce que jullit a ngi fi jullit mhm. fi. bu baax. Mhm. waaye nañ ko fonk rek. nañ leen fonk. Ashura. fonk Taasuwa. juróom-ñeenteelu fan bi dañ koy woor. fan bi dañ koy woor. moo tax ñu koy wax Taasuwa Ashura. Taasuwa mooy bu weer feeñee ba ñeenti fan mooy Taasuwa bu ci ëllëg sa fukki fan mooy Ashura boo defee ñaari fan dañ leen di woor. ziyaari ji borom xam-xam mm. ziyaari ji ko am uh, borom diini mm. ziyaari ji ñëpp dem seeti leen lool moo ci baax mm. waaw uh, bi ci des mooy ñun ñu ngi koy màggal Tiwaawan Ashura ziyaar bu mag a fa am ñu ngi woo ñëpp invité ñëpp di wax na ne ñëpp ñëw ndax ki ko jiiti kat bu sañoon kër gu mu kër ga dana ñëw wa